ñu ko dund wala ñu def daal ñu xalaat. ñu dem. waaw bisimilah mu ne boog parce que mu laa di fasala mu ne xal yàlla ndax isaalatu najaasati dañal sobe an saw bi musallim waliis malaanum aji julli walaw tarafa imaamati doonte dafa nekk ci catal meeteelam bi wa badanihi mu dañal ko walis yaramam itam wa makkaani ak béréb bu muy jullee waaye kat laa tarafa xasiin waxuñu petu tasram tam ndax sunnatun sunna la aw waajibatun wala farata la in sakaran dem fàttali ko ne ko waqadar tam man ko wa illa su ko deful kon a aadamu baamu azuhuri ni ñaari tisbaar ñi mooy tisbaar ak takkusaan li gis firaar yi ba ca gël ga xilaafu am ci wute mu ni xam nañ ne dajal sobe war na ci képp kuy julli gannaaw bi nga dindee sa xadas ba pare dindi nga sa xabas dindi sa xadas nga dajal nag sobe walis li nga sol donte sa kii bi meeteel gi fii la nekk itam war nga koo dindi ci cat li bërëb bi ngay jullee itam na laab sa yaram itam gannaaw bi nga jàppee ba amee njàpp bu ci dara ci sobe nekk li ñu waxoon wala li nga ëmb ni nga ko waxee woon sànq kii kii bu dee nekk ci poosam wala yooyu ba loolu ba nga xam ne waaye nag waxunu ki mu lal di ci jullee ci cat li moom sobe nekk ci kooku du ko du ko wàññi dara kooku waxuñu ko waaye yi nu limoon nga xam ne mooy bërëbam bi muy jullee li mu sol yaramam ndax loolu sunna su war la wala moom kay farata la ci moom waajib la bu ko fàttalikoo te man ko te kon bu ko deful wacc farata xam nga ci lax dara moom dañu waxoon ne charte la charte la ci julli gannaaw tahaar xadas wa xabas laabu yaram yére béréb yëpp na laab kon bu dee charte boo jullee te benn sobe nekk sa yére wala sa yaram wala fi ngay fi ngay jullee war nga baamuwaat ba faw wala fii la gën a waaye fe nag moom sunna la waaye du farata wala ñeen ñi kay farata la waajib la waaye nag nga fekk nga fàttaliku ko te man ko nga xam ne boo ko fàttee ba julli ba noppi dara waratu la wala nga fàttaliku ko waaye mënuloo ko ni ki amuloo ndox dara waru la xilaaful am nañ ci wute ndax dégg ngeen.
waaw waaye bu fekkonte nag tey léegi comme takkusaan la wala timis.
waaw wala dana baamu kon wala jant.
ba jant bi xonq nii waaw.
jant bi waaw di jaune.
bu xasee weesu nag amatul baamu.
waaw nga xam ne kon daal.
jaamu kon mooy baamu ba ci mujj waxtu daruri yi xam nga baamu ci waxtu am na yoo xam ne da nga koy bu dee ngëneel sopp nañ nga baamu ci waxtu fee muxtaar mi jeexul am na yoo xam ne même bu muxtaar mi jeexee ba daruri bi da nga ko baamu mooy kon ci wax yi ñii nga xam dañ ne waajib la boo ko fàttalikoo te mën ko war na nga nga nga boo jullee da nga baamuwaat feeg jant bi amul ci xaw muy tisbaar muy takkusaan ñoom ñaar ñëpp mooy suufare ni ñaari tisbaar ñi te mooy tisbaar takkusaan taxlib rek lañ ci nam waaw mu ni kon wa suquutuhaa roxub sobe fii salaati julli muxtalima ak yàqale bu ko fekkee da ngay julli léegi cóoli bi romb la cóoli day wala nat wala tan day lekk sobe kon ah, laabu kon itam ka bi dem laabu mu ne la ko toq sa julli yàqu wala yow ci waaw picc bu picc muy lekk sobe de moom kileem dana sobe moom dana sobe picc bu lekkul sobe nag kileem du sobe ndax picc daañu ko lekk xanaa bu dee picc rek nag mu la romb te xamoo.
xamuloo li nga Xamuloo sikki man- sàkk xamuloo waaw, sikki waaw, sàkk.
nga dellu loolu la waaw nga dellu nga defaraat dem Nga dem defaraat.
ca la gën a wóor waaw wala dafa rab ci kawam nii wala daf koo dikkal daf koo dikkal sobe lu dul salas salas daana ko waxee sax atte am na atte salas boobu nag salas fee mu ni mu tudd aji yàqulu mu ka dikri haa naka fàttalikoom fii haa ca biir julli ba dangaa amoon sobe nga ne danaa taxawal ma ñëw raxas ko am lu dox ci diggante bi nga dem ba fàtte ko julliwaat nga dem ba ci biir julli bi nga fàttaliku ne yow kat amoon nga sobe soo waroon raxas dara taxoon na la te raxasul ba tey bu ñu ko fàttalikoo rek yàqu na sa julli yàqu Julli
dégg nga waaye laa qablaha laa du caagee ni daf ko fàttaliku woon ba mu daataan dugg si julli gi gannaaw mu fàttali ko fàttewaat ko ne boo dugg si julli gi ba julli ba pare aw kaanat wala mu nekk asfala naalin ci suufu dàll bi fa xalaaha te musumi ko kooku ba tey dara waru ko léegi dafa julli xam nga ne dàll bi ci dara nekkul sobe niwul dagan na nga jullee ko ci sartu bu dàll bi laabee waaye bu dee der dàllu der xamuloo deru mbedd la wala deru fas wala deru mbaam wala deru la bu fekkee ne dàll yi nga xam ne toile lay doon wala yooyu bu la wóoree ne laab la mën nga cee julli boo jullee nag ba ci digg bi nga fàttali ko ne sa dàll yi kat amoon na sobe nga dal ji nii suñu dara warul nga julli yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba ci digg julli gi sidna jibril ñëw ne ko sobe ngi ci suufu dàll yi dal ji suñu continuer jullee ko daanu dem ba fi nga xam ne nit ki mënule summi daal di taxaw ci naaj wi day lakk muy def waxtu wu taxawee dugal tànkam ci dàll wi buy sëgg rocc ko waaye bu dàll wi yëngoo julleem yàq ndax bu dàll wi yëngoo day mel ne dafa porté kii bi sobe si maanaam def ko dafa nekk ci yaram ci moom ndax xam nga li ma wax waaw
waaw ndax mënuñ cee xiyaas léegi tey maanaam wàllu mbubb bi tam ah ma ne ndax loolu mënuñ cee xiyaas wàllu mbubb bi tam maanaam ko xam ne ki tegal woon ñaari mbubb tey waaw muy julli bu yàgg léegi day sobe mu yëg na sobe war na ci kaw dal ci mbubb mu njëkk bi waaw est-ce que ni ñu waxee ci daal yi mënuñu waxee ne la moom itam bu amee pexam su mu mel mbubb mi rek dal ko teg noonu waaw ci charte bi li ñu doon wax ne julli bokk na ci ay chartam bàyyi wax bàyyi jëf yu bari jëf yu bari ñeneen ñi gën a bari ñu ko nettali si ñetti jëf fekkee ne fi ngay kilee fi ngay summee xaw na yàgg wala wala nga xaw ci sonn rek julli gi yàgg xam nga wax nañ ne jiit bu jëm see ci yow wala jaan da nga xam bant nekk tees benn yoon mu dee nga continuer sa julli waaye boo fa nekkee di ko dóor wala nga wëlbati ko wan pelt bi nga bëgg ko sa julli gi yàgg wala mu yàgg wala rey bi yàgg sa julli yàgg kooku itam ci summi gum mi itam fekkee ne yàgg na tuuti rek wala jëf yu bari julli gi day daal di yàgg ndax julli bokk na ci bàyyi jëf bàyyi wax ndax julli contrat la waxtu woone allahu akbar rek signente nga ak suñu borom contrat boo xam ne sa jëm sa xol sa xel sa cër yëpp waxuma ni mu la moomee di waaye geneen moom la ko moom ba ba ngay sëlmal ba nga naan asalaamaaleykum rahmatullahi waaw sañu loo fee def dara yolamal nañu kii wax wax ju la itteel nga déglu ko déglu bu gàtt mel ne ko naan diw de feebar na nga hôpital la qadaralaahu nga xam ne diwa continuer sa julli lu mel noonu waaye bu yàggee julli gi yàqu
maanaam moom la leen faral ak liggéey waaw dafay gis ñoo xam ni dañ naan di ma jël waxtu di ko fay tàkkusaan wala tisbaar ndax ne bokkul seen contrat waxtu ñu doon liggéey wala yu mel noonu ndax loolu jaar déedéet aju na nag ci kaa yu bari ndax am na yu ko mën a woyofal moo di bu fekkee ne nit ki leer na ko ne julli moom farata la te dafa am waxtu te ci waxtu wi lañ ko bukki bañ na da nga def sax ci xale daañu dem ba euh, nit ki fu fii naan daanaka daal euh, li gën a gàtt dab waxtu gën dabuk laab maanaam dem nga ba toll foo xam ne nga dal di tiim julli moo gën nga dem di jàppi nga xam ne boo jàppi waxtu wi raw da nga dal di war a dem nekk tey jant bi fuyee soo tuuti rek jullee goo tàkkusaan léegi nga xam boo demee di di jàpp mu mu jant bi soo da ngay fay kon dootoo yéene joox da ngay yéene fay léegi nga daal di jàpp nga daal di tiim daal di yéene joox benn raka rek boo ko amee ci waxtu yi am nga lépp am nga lépp léegi mu wóor la ne kon julli dafa am waxtu waaye am na muxtaar am garoor yi garoor yu ko am ngànt tax euh, ñu saxal ko léegi mu wóor la ne bu fekkente ne kat lii ngay liggéey moom boo ko amul dootoo dund te dana lay eh, ñàkk dund gi wala dana la indil coono boo xam ne dana ëpp te aju na ci aju ci sa xàq bopp rek ndax boo ko mënee mu nit aju na ci sa njaboot ak yooyu te nga xam ne waxtu muxtaar mi xaj na ci nga mën a dem ba mujj muxtaar bu fekkee ne du lu sax nga xam ne ba faaw lay doon
maanaam war nañ mën lan bu war bu lu trois heures waaw wala cinq heures waaw képp jot na waaye nag muxtaar bi mën naa dem ba nëga ni ba nëga ni léegi tisbaar.
ñu bàyyi waaw.
teew teew bi te bàyyi ba nga xam ne bi mo mu di daroor yi bi waaw.
mën na ñàkk ci mën mën na waaw nga julli ndax daroor yi taxoon daroor yi contrainte maanaam moo tax ñu kiréel ko saxal ko waaw mais lislaam dafa nekk lu lu suñu borom jàppandi jàppandi gi itam nag dafa am yoon ak diinu yusrun sallallahu alayhi wa sallam dafa ne kenn du ko teengal bu dul rek boo ko tegalee di diine dàq la maanaam day mujj diis ci yow ba nga daw ba la nga doon kii sax dootoo ah, loolu moo tax ñu daganal sëy daganal fase di fase la yàlla gën a bañ waaye mënul ñàkk ban contrainte la naka noonu itam waxtu dox luy tax ñu saxal ko nga xam ne ka julli si kii boo ko boo julliwul amuloo nga xam ne da ngaa am ngànt da nga am da ngaa amul ngànt kii amul ngànt mu julli ci muxtaar yow nga dem ba ci daruur yi moo la ëpp tuyaaba ñeenti yoon bu fekkoon nag da ngaa am ngànt yow boo ko jullee ci daruur yi mel na nga nekk ci julli ko ko julli ci muxtaar yow kon ñu ñu ne kon wasu ko taaratu sa biir fii salaat si julli mubtilun aji yàq la mu julli ga ka zikri haa naka noonu mu fàttaliku ko waa fii haa ci biir julli ga waaye laa qabla haa bi ci mu fàttali ko woon ko ci la jiitu julli ga ba dugg si julli gi fàtte ko nag léegi au kant wala mu nekk moom sa bés asfala naalin ci suufas dàll wi fa xala haa tam summi ko moom itam dara du ko fekk wa ufiya jéggalee fat na amma walis la nga xam ne yasuru dina jafe dana jafe taqool ta ta tàqalikool nga ne ko lu mel nan mu nekk xaalis yi nekkoon toj mustan ki xen mu da aji taq borom nit ko xam ne fu mu toll rek day toj le fu mu toll rek mu ngi toj le nga xam ne bu jàppee sax ba day kàbbar day toj le bu toj le day continuer julli xëy na mala dina wala daal wala bu bu demee ba kàbbar toj le ba lay julli jee jeex faaw bu toj waaw wa balali baasuurin naka noonu tooy tooyu baasuur fii yëdduñ ci loxo in kasoro ndem bari na araat du delloo ko mooy hémo hémorroïde hémorroïde bi am nañu xale yi ñu ngi génn leen noonu waaw bu génnee nag mu ngi koy delloo xam nga la dana tooyal loxo xam nga loolu sobe la waaye bu fekkee ne de am na ñi nga xam ne suñuy dem cabinet rek lay génn su fekkee nag day toog toog jigéen jigéen nga xam ne mu koy fasal delloo di ko delloo noonu ba delloo gi bari léegi jéggale nañ ko mën na jóg rek kàbbar fekkee mu ngay njàpp mën na koo julliwaale ba bala di baasuur mooy ak tooy tooyu baasuur in kasra ndem bari na arab du delloo ba aw saw bin wala malaan waaw saw bu murdaat kañ kii daf ko tëb wa saw bi murdaatin naka noonu malaanu aji nàmpal xam nga ko nàmpal kii toujours daf koy faral di sawa ko sawaatam yooyu moom itam waaye nag saat na ci na faral ndax wax ko sax fii waaw kañ te tey du koog dana mu farlu farlu na lool ci xaj ak raxas ak fóot yooyu waaye rek du ñàkk yu yooyu ci rek jégal dañ ko jégal wana di ba soppeef na laxaañeel ko mu aji nàmpal jooju sëw bu mu am malaan moo xam ne li salaati ngir julli rek lay spécialement mu wut yëre yoo xam ne bu julli rek day daal di summi yi mu amee woon daal di koy sol bu jullee ba noppi summi teg wa duna dirhamin ak lu yées dërëm min damin bu tukkee ci deret mutlaqan mbir mi lu ñu boyal ci ñàkk a teg moo xam ci yaramu aji julli ji la wala ci malaanam bépp sobe bu dul deret rek lu néewam ak lu bare ñoo yem kenn war koo julliwaale bu dee deret nag lu matul dërëmu bax la weex weex bi am ci kii de jëwu bax la ji rek fee tollu ko moom jéggale nañ ko wa xayxin naka noonu mbir wa sadidin ak dëttu wànjoor wan bawlin ak saw wa bawli farasin ak saw fas li xaasin ñeel aji jihaar rek mooy ar ñi ci armée bi soldaar yi nga xam dañuy xare fas yi ñuy war di xare jee fas yi lay suñuy saw dañuy kii seen géem bi noonu mu di ko dal kooku moom moom jéggal nañ ko ko dara nekk si fekkee ni itam dafa am taab mu bët xam nga day faral di génn loolu mbir mi mu koy fomp ak yooyu ba tey jéggale nañ ko waaye nag aji borom fas woowu kat nga xam ne day jaari moom dafa nekk bi ardi harbin ca suuf fas xarewaas naan mu nekk ca front ba daal fa ñuy xaree wa asari zubaabin ak jeexiti weñ min azret mu tukkee ci tojal waaye am na charte de weñ bi dafa dal ci cabinet yi ñëw dal ko ci yéreem bi ko raxas waaye nag nee ñu bu mu fekk mu tooy xip maanaam sobe si mu dal tooy xip ba pare bu bu mu dox itam ci biir sobe si ba mu dee xijaamatin ak bérébu nàmpatal xam ngeen nàmpatal de xam na day des tuuti dara te dañ ko bëgg a raxas ndax xamuñu dox dana dugg ci solo ci kii bi wala déet dañ koy fomp noonu nit ki dana ko mën a julliwaale mooy musiha boo xam ne fompef na ko ñu fomp ko day daa bëri ak ndem bér ndem wér na xas la mu raxas ko bu wéree rek na ko daal di raxas wa illaa su ko raxasul day aada mu baamu fil waxti léegi waa ji day day masaa wala muy tëb fi mu nàmpataloon gannaaw fomp na ko rek ba deret ji tëj léegi mu continuer di ko masaa noonu bañ ko raxas bu mu wér nag mu fàtte ko dana baamu li mu julli woon li mu li mu julli woon lépp ci diggante bi mu ko bi mu wéree ba fi mu toll wa illaa su ko raxasul de aadama baa mu fil waxtu bu fekkee ne léegi waxtu takkusaan la bu fàttali ko war a baamu feeg jant bi xonq rek dana baamu waaye bu jant bi xasee so dootu ko baamu maanaam bu fay kon mu kon julli gi yàqul daal wa uwwila jamtalee fat na bi nisiyaani ci fàtte gi ubbil litlaax ak ci boyal gi wa uwwila waxoon waxoon nañ leen ko Hmm?
waaw
Hmm? am na ñu jàmtal kon ne daf ko fàtte de moo tax muy baamu ba ci mujj waxtu wi rek waaye bu fekkee ne fàttewu ko kay dafa lànk bañ koo raxas day baamu ba abadan moom bu bu waxtu wéyee day daf koy fay covid lit la mooy boyal bi wakkati ni abadan moom mooy baamu ci waxtu moom mooy loo xam ne dal bu waxtu weesoo jeex na jeex na waaw baamu abadan moom Bo- xaw moom da nga koy fay rek kon foog fekk rek ngëneel la lu ko faat ñu yéene ko ngëneel li naan ko da nga koy baam fii waxtu bi waaye bu julli ga yàqu bu fekkee nag dañ koy day baamu abadan mu ngi tekki ne julli ga moom yàqu na Yàqu.
daf ko war a fay te julli goo bàyyi doomu aadama julli bu mu bàyyi dana ko fay keroog taxawaay ba fay moom méttee méttee métti ndax yàlla moom moom digle faaw nit ki def ko bu keroogee bu ñu nee sujjóot leen ñi daan julli daañu mën a sëgg mën a siggi mën a rukkoo mën a këpp sa jëf maanaam su jot ñi ko daawul def dañ naan sart mel ne kuur seen yaram wi di bax yow yëg suuf yow yëg suuf an saaqan wa yad'una ila sujudi fala yastati'una fala yastati'una ndax loolu moom ñëpp lañ jublu maanaam ndigal li doon ba ñëpp lañ ko sant wala ñoom ñu bañoon rek lañ koy sant boobu
dañ koy sant ñëpp bu ko defee ñi nga xam ne daañu julli woon day neex ñoom mu mel ne yow mu xiif bay bëgg a dee ñu jox la ñam wala yow mu mar bëgg a dee ñu jox la ngay naan nan ngay daldi sujjóot yi daldi gaaw a julli ki ko kii nag mu ngi mel ne rek moom kenn mënu la ko wax mu mel ne ay pont la ñu daaj ci yaram bi bépp mu ba pour mu pour mu yëngu dana ko jafe day metti ñoo ngi woon fanati muy def ko uwila Uwila, bind si ne wa bil itlaaq yi ak bëri wakkati ni matarin naka noonu baniitu taw doo wa jéggale nag wa in ixtaltat doonte jaxasoo na ne itam al asratu ak i tojal bil musibi caa ñi jot jël dafa taw fii ba ba nit bi rëmb rëmbee nga jaar ci mu wisu ci seen sér yi doone rek fii kat mun la ñàkk sobe kon bënit bi war naa ko raxas jéggale nañ ko waaye nag même bu ci bu wóoree ne bërëb bi sobewu na sax léeg-léeg itam léeg-léeg mu am ay sobe nga xam ne sobe si mën na nekk ci bënit bi jéggale nañ ko moom itam waaye nag laa in xalabat du caagi ndem not na fekkee ne sobe see ëpp doole ban bi sobe see ëpp ban bi ah kooku dañ koy raxasi la wa zahiruha aji feeñam fa mu dawoon a al afu jéggal ba tey jéggale nee ñu ba tey bu sobe si fee doole yi moom daal jéggale nañ ko rek waaye nag la in asaaba du jaagi ndem jot nag ay nu haa jëmmi sobe si laa ina sa wala wala ina wala laa ina sa ah laa ina sa wala wala ina sa wala in asaaba wala ina saw
maanaam léegi waa gi est-ce que moom gënu ci place am la wala laa bi de moo gën laa kese waaye walaa ji moom kuléewul mu ne maanaam kenn jéggalewu ko bu fekkee ne jëmmi kii bi sobe si ci la dëgg moo ko tax kooku nag moom raxas moom mën ñi ko daal di raxas yi rek kay moom mu ne wa dayli imraatin naka doon mbiccum jigéen mu taalin mu di muñ guddal li sutri ngir suturaal yaramam xam nga comme jigéen moom lu dul lii ak lii sobe kii la awra la léegi mu mu am mbubam gudd pour pour suturaal awraam yëpp léegi léegi mu diri ko ci sobe si mu jéggal ko mu taalin ana fu mu toll man sax waaw
ñeent li sutri ngir suturaal yaram jéggale nañ ko wari jëleen ak tànk bullet boo xam ne tooyalee fat na ko yemul raani ñoom ñaar daañu romb muy mbicc bu jigéen jooju ak tànk bu tooy boobu nga xam borom dafa jàpp mu tooy muy dox ak tànk neenam bi najisin ci sobe yebi sa sos wow na mu bu dee sobe soow dafa fël ay kabine yu wow jéggale nañ ko waaye kat yet xuraani mu ne ndax daañu laabe bi ma baadahu la ca gannaaw da- tànk bi fi mu laal doxaat bu muy doxaat ci suuf si moo koy laabal naka noonu mbiccum kii bi fi mu laal te muy sobe su wow euh, durikuwaat bi muy durikuwaat ci suuf si muy dem dana ko laabal waaye kon bu ko laaloo nii rek daal di dugg ci place jullikaay bi day daal di am ba sikk sàkk ko waaw waaw waaw naka daal kon dana ko bari ri- loo dana xam ko ris ni- waaw dana ko ris waaw fekkoon itam sobe si lu tooy la itam daf koy raxasi dégg nga wa xuffin naka noonu aw sang wa naalin ak dal min raw si dawaab ba ci dumbaajali daaba wa bawliha ak sawb in dulika ndem fompeef na leen waaye laa xayri du ca génne lu dul dumbaajali daaba daaba am na daaba yoo xam ne seen kii sobe la mooy yan seen cabinet sobe la mooy yan daaba ganaar
fas lu tax
yàpp
dañ ko waaw dañ ko sib waaw kon liñ de ganaar lu tax muy sobe wax di sobe yàpp day lekk sobe d'accord léegi nga sol dàll wala sang sang mooy dàll yi nga xam ne day yéeg ba fii rek boti yooyu rek mooy suuf waaw xuf moom it mu laal ci euh, neefaree fas bi moom itam jéggal ni ko wala wala mu dëgg ci euh, saawum fas mi mu nga induli ka dem fompe fi ne leen nga fompe nii rek day dem mu mel ne rek mbicc mi ak tànk bi jaaraat ci suuf si rek suuf si euh, setal ko ana moo te laa xëy fan la nekkati gisatuma ko ina saa bay nekk tànn laaw juróomeel waaw waaw laa xayri mu ne nag du caa génni lu dul xanaa du almaskuur mi daw si ma boole ak ak ak saw kii kii yooyu daaba yooyu ak saw kii mu ne bu daan leneen fa sabab soo fekkoon yax la ahoo lay summee ko almaasi wu aji masaaja koo xam ne laa maa addeet ndox ma ahoo di ànd ak moom daf koy summi bu fekkente ne du loolu du yii ñu wax nga xam ne jéggale nañ ko la wayete yàpp mu dana tiim bu fekkente ne amul ndox day tiim waaye waxtaara tànn na kan la xam ne mu jëlee fan
waxtaan kii kii mu nafsi min nafsi yow voilà lu mu tànn ilxaaqa rijli faqiiri yéegalu tànku aji ñàkk ci borom sang woowu nga xam ne dafa dëgg ci sawum daaba wala dumbaat ki nga xam ne dafa ñàkk maanaam amul dàll wala dàll yóbbu ko xam ne su ko raxasee dàll bi day yàqu du amaat beneen dàll kooku maanaam nga xam ne solul dàll ndax loolu tànkam dañ ko yemaleeg dàll woowu man xana jéggal ñu ba fii xëy yi mi ci lu dul aji ñàkk nag xawlaan ñaari wax bi ci lil mutaaxirina wa waaqeen aji ak ak ji romb aji aji tabbi ala maarin ci aji romb da nga romb rek lëf di dal ci sa kaw da nga romb ci étage bi ñu ne paw ndox mi mu dal sa mbubb kooku itam jéggale nañ ko ak lu mu mën a doon rek waaye nag wa in saala ndem laaj na day su dëq dëggalee fat na al muslimu jullit rek bu fekkee eh yow li nga ma tuur lan la mu ne la ah sobe la de dama raxas muy jullit da nga koy raxas si sobe la bu la nee ayib de amul benn sobe de fekk jullit la da nga koy da- da- dëggal bu dee jullit daal lu mu wax da nga ko ci dëggal waka sayfin naka noonu lu jaasi saqilin bi la aji melax li ifsaadihi nga xam ne ngir yàqoom ci bari barig raxas gi ak barig fomp gi min demin mu tukkee ci deret demin mu baaxin min demin mu baaxin ci dereti lu ñu daganal wa asari dum misaal loolu ba pare jaasi yi nga xam ne jaasi yu rafet yooyu ñuy xare yu yu xam ne dafa rattax noonu luisant ñaw mu tax deret nga xam ne soo ko raxasee day yàqu maanaam dootu mel na meloon ñu jéggale ko mooy li ma wax ne saxaaba yi dañ daan julliwaale ci xare jaas yooyu nga xam ne même ponk bi sax deru kii la waaw te day taq itam deret mi ngi waaw kii na min bi mu baaxin ci derati lu ñu daganal wa asari dumarin wala jeexiti taab taab ba mu dafa bët mu fomp ko waaye comme raxas ko dana am ay jeexit yu fa des mu xaw a changé tuuti noonu deru ci deru pour mu xam ne dara taxoon na fi daal kooku itam jéggal nañ ko lam yun ka koo xam ne ekkateefu ko maanaam kenn bëtt dafa bëttal boppam jigéen noonu ñu fomp ko waaye ba tey moom it de warul ba soppeeku na ba tey ak loolu lépp soppeeku na ñu fomp ko ñu raxas ko intafaaxase dem ñaawal fekkee ne rek dañ ko fomp ba noppi mu ne fi ñàkk noonu kii noonu salte noonu daal ba tey sopp nañu rek du lu war waaye sopp nañu ñu fomp ko wala ñu raxas ko ñu yëpp wala ñu ka demel baraxis bu subaa noonu ne ka demel baraxis yi benn proposé nga fa léegi ñëw ko bu subaa bi kon nag ila bukra yaani bismillah
di ànd ak soxnaam dañ ko ci benn di soxna wala di soxna boo xam ne jëkk ne dañ doon ñu ci jarat ak jarat bu mu mën a doon te ëppul dara mu baax la mu ne te damit baraax bi si ci wet ne la nekk jarati broxoos mooy xel ak matt ak yoog yooyu waaye feeñ bokkul ñu ñu ne ko faw bu ne ak illa fi salaatin ndee ci biir julli bi la ko fàttali bu boobaa nag soppatuñu ngay dog julli nga dem di ko raxasi ndax dañu boo kàbbaree rek engagé nga engagement la sa temps bi foogee ba ca ni mu asalaamaaleykum jëm moomatoo ko moomatoo say bët waratu woon xool dara moomatoo say nopp waruma déglu ci mbiri àdduna dara daanaka sa xel sax war nga ko jéem a tënk ci li ngay julli naan ko faral di wax naan boo bëggee mën a teewul ci julli dafay faral la si maanaam teewul ci lu mu julli toog rek di xalaat traay ba meel ak sukuraat ak yooyu ko defee boo ko tànnee xalaat da ngay mujj ba xalaat ci yi ngay gis yëpp lépp di la waar dañ mu naaw sax waar la picc mu naaw nga am ca xam-xam waar la bokk fekk kàmbar di julli dootoo mën a xalaat leneen mbiri di mbiri mu weetu dana mu laabe moom luy sobe maxal na gisi bérébu sobe bilaa niyatin ci lu dul yéene bexas li ñuy ci raxas dajal sobe àpp yéene nangoon nañ ko seen saal fekkee ne yaa ngi dindi sobe bi comme maanaam nekk luy xabas aajowul yéene raful xadas rek moo aajowul yéene ndax jaamu yàlla la bilaa niyatin bexas li in urifa nem xamee fab ne ko xam nga fi sobe si taq nga daal di koy raxas rek soxlawul yéene wa illaa bu fekkee ne xamul woon fan la fi xam nga nag malaan mi am na solo waaye xamul fu solo si nekk kon fa dana war raxas bët bi jëm ni mashkuk ci mboolem fu ñu sikk rek fii ci moom boo xamee ne daal xëy na ci laf yi daal li daal fi ko fi waaye xamuloo fu mu fi doon boo xamul fu mu fi foofu rek ngay raxas boo ko xamul na nga raxas fu fépp mu wóor la ne fi nga raxas moom génn ko kon nga danga xam ne kon sax na fi nga sikk fépp mu ni la ci ñi nga xamee fi nga sikk ngay raxas boo xamee benn bi nga raxas ko mu nekk ku may nekk ñaari loxo yi bu bëm benn am na ci boo xam ne bii am na sobe boo ko xàmmee nga raxas kum mu ko yëpp bu fekkee ne xàmmee nga raxas ñaar yëpp mu ne bi xilaat ci saw bay loolu wute naag ñaari malaanam ñaari mbubb la amee wala ñaari garam wala ñaari tubéy ko kon far sabab soosee mu sikki sakkaa yataxaadaa lay wata lay nattalee la la la mu war a ba ba ci sobe wala fu bërëb ba nekk mu raxas ko xam nga bu fekkente ne moom benn benn yére la mu wóor ko ne sobe si dal na ci xam ne béréb bi mu raxas ko xamul béréb bi mu nattale fi nga xam ne daal xam na ne du fi du ko du ko génn mukk bu fekkente ne dafa loolu nag muusi nag bu xa- bu ko leeree wala mu jortu ne am na benn ci ñu ñaari yére yi bu sobewoo nga xam ne ñaar ñu taxali wala benn bëgg fee benn fee mu sikki sàkk nag ban ci yati kon day nattale ba laab maanaam ba mu gën a jottoo laab rek ndax gannaaw ñaar ñëpp sobewul te bii la ko gën a yaakaare mu jàpp ba ca des mu ne xam nga dafa ne woon xasalaw mu raxas ko bi taxuurin ci ndox mu di aji laabal taxuur bi ko waxee rek bokkul ak taahir nga taxul waxtu mu baal fa faawul. toujours moo gën a fort du sens am. mooy ndox moo xam ne laaj la ba mën a laal. mu mu mu di aji faj.
mu ngi dellu ci bi xas li bi ko am waaw kañ bi buñ ko filim boobu di aji faj te zalika naka mu meloon ci bu njëkk ndox mi ngay raxasee sobe si da ngay sotti di fexe ba nga xam ne ndox miy génn miy génne ci fi ngay raxas day mel na meloon na ko sottee nga xam ne meloon soppikuwul xetam soppikuwul cafkaam soppikuwul mooy buñ fexe moo xam ne aji faj la day génne ci li ñu raxas di wadd mais ni ngay sotti ni ndox mi ngay fexe muy sotti nga ndox mi nga xam ne yaa ngi koy sotti te ak sébul ni mu mel bu bu setee buy génn noonu lay mel waaw loolu mooy sàrt mu kii bi malaan bi laat na boobaa bu xet bi dañoo itam aw ci ci ci la jëm dina ko daal moo daal loolu laaj mu ne walaa yelzamu bu waa asru ak nalam may wañ ma asaraani taxmi am nga beneen cafkaan maanaam même boo ci dee sotti di fexe ba mu wóor ne set na nga xam ne ndox mi génn moom ko yam léegi su la neexee bañ ko woon sax bu fekkente ne meneen malaan tegu na ci kom wala mu tegu ci meneen wala mu jël meneen malaan du ko sobee ndax set na atte na ne set na ba noppi bopp itam daan ko mu ne waaye nag laa du war raxas law melo wareexin ak xet asra bu jafene ñoom ñaar maa ngi dañ daan wax waaye laa law nu bu jàggee ni xet nga ca xaleel wareexin déedéet laa law nu bu jàggee ni meloo ca liir wareexin ak xet nga ca mag asra ñoom jafe nañoo dindi dañu wax ne kii wala yooyu dana jaune noonu nga raxas raxas mais jaune kii jaunaay bi des ci rek kooku teewul mu laal naka noonu itam affaire mag da nga ko raxas ba mu set mais boo ko fóonee muy xëy moom bala taaw a xet dana yàgg yooyu moom bu tee mu laal bu tee mu laal ñu ne laal moom bu jaay gii ni meloo ca xale liir mun nga wa wareexin ak xet ba ca mag asra jafe na ñoom ñaar ci biir war nañu mel ni problème waaw ci war nañu mel ni problème waaw waaw ñu baax daal ñu defee rek waaw
waaw moom li nga xam ne taxawu bi ñu balwaat xam ne day faral ak kii bu nekk dégg nga mu ne ngeen teg wala xusaala jox waaw.
wala xusaala ak petit al mu tax a yëngatu mu dee aji soppi ko ci caf ka caf ka sobe sa wala melo sobe sa wala xepp sobe sa ba te jafe woon ndax dafa naqari woon rek nii dina ci sëñ dina ci waaw dafa soppi koo sobe kooku moom fii ñu ngi koy soppi rek xet bi wala caf ka wala melo laabul ñu koy dindi dañoo waxoon ne kii bi waaye waxuñu petit petit moom moom buñ ci defee yére bi waxuma tilim ci soppi ko wala cuub gi waaye bu yére bu set bu amul woon amul dara du ci yëngu sobe taq ci nga raxas ko mm, ndox mi mu ko doon raxasee soppi ko ndox ma sobe sobe mu ne wala zaara doonte dañoon na sobe do- doonte dañoon na ay nun na jaasati jëmmi sobe si bi xëy na mutlax ci lu ndox mutlax itam lam itam naa jas du sobewu mulaaqi mahalliha aji dajeeg bërëb bëgg ba mooy ni ma misaale woon léegi kii bi sobe saa ngi nii nu raxas ko ba sobe si dañ léegi mu- mu dajeeg fi fi nga xam ne ci meneen malaan mi wala yaram daje naag fi ñu raxase woon sobe si mu joju ci eh, du du du ko gis du ko sobee mooy waroon saara donte dañoo na ay nun na jafe ci jëmm sobe si moo dañ bi xëy na mutlaq waaye ci lu dul loxo mutlaq dafa waw ñu wax ko mu dañ wala ñu raxas ko ndoxum suukar wala ndoxum xaal ba mu wër ne jëmmi sobe si moom dañ ne xëy na laab bi moom ñëwagul amagul laab ndax laab yi sàrt lañ ci am te mooy ndox mutlaq amu ko nag léegi noonu jëmmi sobe si moom dañ na mu fomp ci beneen yére wala beneen yaram tax mu sobee ko wa in sàkka dem sukki sàkka na fii isaabatiha ci jotub sobe gisaw bi ñeen malaan waja ba war nof woo ak wisam ris ris léegi nit ki dafa tóor ndox xëy na tis na ragal na ne dal na ci réew waaye nguuru ko mu fab ndox def ci loxoom wis gi maanaam pour que bomb koy tooyaayu ndox mi ndox mi di waaw doo ko gis de lii déedéet loolu moom amul maanaam bu sens moom puisque da ngay fab ndox bi sa kii def ko compare dégg nga mu waje ba am xaw boobu waaye taraka bu fekkee ne bàyyi na ko a aadamu baamu asalaate julli ko fekkee ne sikki sàkk na sobe si dal na ci wala dalu ci ba noppi dem dem mu risque dal dem julli dana baamu war julli ji ndax baamu nga ndax baamu bi mu dox lay doon wala kii am waaw
سوف نعرف ما شيء من يوم لمن هو يفكر فقط
صلوا إن ترك المرأة صلاة تسقط عاد صلاة التي صلاها تسقط فيه بلا نقص كذلك
kon de waaw parce que dañu nekk leen semence a ngi si risque boobu la ñu atte la ñu atte yoon ni mooy indi semence comme defu ko dana baalu baalu suuf faaw lay doon kon maanaam nga xam ne moom fi ni waxtu bu mu doon moom ni waxtu wees na wees lépp dafa war a am waaw kañ def ko arrêté nekk noonu c'est bu fekkoon ne léegi dafa amoon yàccenti ne moom ngi julliwaale la sobee tam waaw kañ ba baa mu ngi dem mutlaq la war a doon mut la xam ne war a doon waaw wala mu sikk sàkk ko sax wala mu si sax waaw ci maanaam mu julli ba noppi dana dana ko baax insha allah mu ne wa in shaq fi isabata ism bi wane ba nga ko wala in taraka ndem bàyyi na ko a aadam ba mu salaata julli ga mu ne kalxos li naka noonu cangaay wala raxas woo moom noqa ah ni ma indi da nga liwa liwa liwa muy boyal loo bu tàng mu ne benn fàtte na ko wis wala muy fàtte ko raxas te ko raxas dana baax mu ne ko moom naq ko rachid ak bis na bi dee loxo bi daal yéeti soxlawul yéene comme ni ñu waxoon ne dañaa sobee soxlawul yéene kon bu defee loxoom comme ni ñu waxoon ne parce que risque noonu nga jeex jeex na dem na waaye laa im sàkk cagi im sikki sàkk na fii na jaaseti musi bi ci sobe wu aji jot jët ndox mi nga xam ne ci daf uus wala ndox mi tis dal ko dafa sikki sàkk sobe na wala wala déet kooku moom risque waru ko ci dara waru ko aw fihima wala mu sikki sàkk si ñoom ñaar ñëpp sikki sàkk na ndax laal na ko wala laalu ko bu ko laalu itam sikki sàkk na ndax so li ko laal sobewu na wala sobewul ndoxam kese la muy lu wala ndox mu laal wala mu laal ñooñu yëpp itam ñu ko risque waxal yàlla mu ndax al gisadu naka yaram kon kasaw bi naka mënaan la ci risque ko ak raxas ko aw wala moom kay bu dee yaram mu yéegi bu dana war xaslu ak raxasam xilaafu am nañ ci wute fàtt fàtt dugg ngeen la woon xilaafuñ bi
خلاف جوية متأخرين متأخرين الناس
في أدب الناس
li adami nas maanaam li adami itilaa'i ala arjahiyati ahli ahli ahli laay ala arjaxiyat waaw jàng leen da ngeen di nawet ba mokk ngeen bàyyi ngeen ba ñu ne toog bu xasee mokk ba ñu ne toog ñaari ñaar fukki at kii daal bu ko gisee kii boobu ma koy jàngal chef nii xanaa at na ñaar fukki at mu ko gisee tëgg waaye da ngeen koy caq lañ koy jàng de man ci kii noonu waa yaa ko koy fan moom tax nga xam dara ci fokk li nga maxal ma la wax jëm waaw gaa yi ci waar bi de rajab jàng la laaj Cheikh Gaye mu ngi doon doy kii waa Deye xam mu yëg yëg rek dafa jeex dara lay jàng dégg nga xam nga yaram aussi dañ ne yëre moom boo ko dee raxas raxas bu bari mën na ko ràppal mën na ko gaaw a ràppal te yaram moom loolu du ci wàññi dara moo tax yemuñu kon yaram moom dañ ko war a raxas moom amul risque moom moo tax mu ne ndax yaram moom kaso bi nag maanaam te kon daañu ko gis aw wala moom kay day war a raxas dugub ak raxas moom dañ ko war a raxas moom même bu fekkee ne da ngaa sikki sàkk ndax sobe si laal na wala laal na te muy sa yaram laal sa tànk bi wala laal ko da nga koy raxas bu fekkee ne si sikki sàkk nga waaw foofu rek lañ ko war a raxase ndax nopp bi bu fekkee da ngaa sikki sàkk ci li la dal sobe la wala sobe wul doo ko risque wala itam ba tey tànk bi doo ko raxas muy nag si tabax ni mu lënt na tawurun aji laabal ndox mu di aji laabal mu indi mu lënt buut nañ si ak aji sobewu aw nañ si wala sobe si ci boppam jëmmi sobe si sàllaa na mu julli bi ak dina si ca kemu sobeer wa ziyaadati inaar yi ak ñu dolli benn nag léegi ñetti daba fi nekk wala fukk waaye leer na ñaar sobe na si mu ne si ñaar ñoo xam ne sobewu nañ dégg nga bu dee cangaay da ngay sangu ci nii dem julli ji dellu si sanguwaat ci nii dem julli ji dellu si sanguwaat ci nii dem julli ji wala nga raxas sa yére ci nii dem julli ji dellu si raxas ci nii dem julli ji gannaaw ñaar rek moo ci wër ne solo nag raxasu nga si ñett kon wër na am na boo raxasu boo xam ne moom amul solo waaw
noonu la la def moo ngi ko initiative li mu lënt na man de fukki bi la doon raxasoo
waaw bu fekkee raxas raxas nga ci mi am sobe nag waaw julli julli dem raxaswaat raxaswaat ba mu set ah ci meneen waaw Julli.
boobu day def.
lu ci nekk raxas nga ci julli nga ci waaye yaa doon la boo laalee ñett moom boo doon liggéey ba daa wóor sa bopp.
moom boo nee julli nga moom julli nga si ñaar mu sama man nag wóorul sax julli nga si ñëpp bu fekkee ne fukki ndab la wóorul sax julli li nga julli yëpp mën na kii ko laab waaye li wóor moom julli nga si mu laab moom
yàlla mu jub ba sangu ci biir sangu ci biir sangu ci biir doo ko julli kooku moom ngaa yóbbu man sa jaxase nga ci solo bi man tamit laa moo mujj yaram jullee ak sa solo waaw
kon laa mu jël julli ci mu sobe moom sobe moom bu waaw kooku moom fekkee julli woon na ci mel rek waaw waaw kon yéen julli julli ci ci waaw julli woon na baax moom julli ko dugg na moom
mooy wala ministre dafa jël lënt na dafa wóorul da ngay def mu dakara wala su ngeen tàng loolu ko dama ay daawan def toog di posé te question di laaj jëm kenn kat di fàttali ko kenn ministre baax na lënt na taxurul aji laabal di wut na ci seen ci ndox mu di aji sobewu aw na ci seen wala jëm ñu sobe ci bopp ndax am na ci ndam loo xam ne saw kese la sàllaa mu julli bi adresse benn si ci kenn sama aji sobe wu ya ba si yàlla ci inaay man nag doon li beneen ndab ba dañu ko soppees na parce que inaay raxas ndab lay inaa inaay ndabal ndox la ñu wax de nga dégg ci ne kon waxuñu defal ñam bu raax te def ci tuuray fat ko waaye laa taxaw ne ah wax na ko sax benn yoon moom ñu dañ naan xalit bari lu ndaw di laaj laajee mu ngi ci wax dana ko laa taxaw ne waxaw jëm bi caagi ni mbal ko itam dañ koy def itam nag taab bu dem nga jaamu suñu borom rek sab an juróom ñaar ñu ko waral xanaa bu ñu waxee kan bi ci xamu xaj mu laqal muy muy weer moo xam benn xaj la wala junni xaj la wala fukki xaj yi bii dafa dem ñëw xab dem beneen ñëw xab wala ñun ñëpp si gënoo di xab wala benn xaj bi moo xab nangam yoon yépp benn la waxtu waxam ne ne daal xaj bi xab na ci ndab dugal na ci lii ñu xab ñu dégg ñu xab ndab li waxtu bu ñu ko bëggee jëfandikoo donte tibb suuf lañ ci defit daañu tuur la nga nekkoon. raxas ko juróom-ñaari ndox. nga xam ni kon ndax loolu bu doon ñama ci nekk xaj bi lekk ci ba suur wàcc fa la ca desit kenn du ko tuur kenn du ko raxas juróom-ñaari. loolu yaakaar naa waxaw bi bu dee mbàkk itam xam ndox mu baree ci nekk xaj bi ñu xab ci wala fukki xaj bi ñu xab ci tax ñu tuur ko ñu ko raxas juróom-ñaari. nga ne xool. loolu lu ko waral lu la taab bu dem nañ wax ngir nga jàng lan la taab bu ko foqaaw yi waxee rek mooy loo xam ne ñoom xamuñu illa bi dem nañ ba xamuñu illa bi am na yenn scientifique yoo xam ne dañuy wax ne li noon tontaal yi li ñu posé woon question bi ñu ne bi nga xam ne découvrir nañu microscope ñu gis ne xaj buy xab glande yi day ubbi ko te dina dana sécréter benn liquide boo xam ne dafa am ay microbe ñoom dañu jàpp ne loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle ko te bu dee lekk glande yooyu ubbi ko ba tey it wóorul loolu rek la wala déet ndax mbir diine moom ñu xool de ñoom nag gannaaw ko xaaw ñun xamuñu lu waral ñu digle ko ndax nee nañ mbaam xoox la la sere ak la sib ci xaj te mba te mbaam xoox bu xamoon ci ndab wala mu wala mu nuur cay ba dee tax ñu ko raxas juróom-ñaari ndax ñu loolu daal jaaxal leen lu ënt leen ñu ne taa am bu dal lañ koy maanaam rek topp ndigal rek
waaw ñam mooy moom bi mu toll nii moom moom gannaaw kenn du ko raxas léegi gannaaw moom raxas bi moom du lu ñu kenn sopp ko waaw sopp ndax moom fi ne ñam wala yi moom wàllu jëfandikoo ko moom mu ko yor mën nañ ko jëfandikoo ay tax waxoon nga ne ah lu am ay di leen delloo waaw dama ko doon bëgg a xarit naa leen nag li nga yëg li nga yëg wax rek jàng waaw lu am daal faqir daal day waxtu lu bari ba noppi xam xiyaas ñu waxee moo xam war a xam la ko xam buñ si toppatoo lu bari rek bala ba ta- takk ko lu mu wax rek da ngeen xam lu tax sapan juróom-ñaar bu ñu wax kër bi ci xaju xab xabu xaj moom la xam mbir muy bi ñu joyal dégg nga ak ban façon xaj ak ñaata xaj ak nu ko xaj bu war a xabe rek waaye nu xam rek bu xamee daal rek moom kon xaj bu ñu diglu yaram la wala bu ñu diglu yaram ak xaj bi mu doon daal moo xam ban façon xaj la rek sopp nañ ko waaye daa xëy di tegi lu dul xaj rek donc mbaam foofu la woon tamit kañ lañ koy raxas itam juróom ñaar xanaa inda pas di istimaal yi fas jublu jëfandikoo bu ñu ko bëggee jëfandikoo rek nag ak lu mu doon duñ ko mën a jëfandikoo rek war nañ ko raxas juróom ñaar waaye fekk kenn jëfandikoo bu ko dara kenn diglewul ñu raxas ko bi laa niyee si moom it ci lu ñu yéene jëfandikoo gi moom ci ak lu mu mën a doon rek même bu doon mën ci tibb suuf day sotti ci yàgg
bu ñuy lekk ak bu ñu dul lekk ak yëpp ci yëpp bi laa yéete ci lu yéene wala tatari bi ak ci lu lu jonj am na sorte nga xam ne rek yëngal tuur am na yenn riwaay yoo xam ne ñoom dañu ne ndox mu mujj mi dañ ci def suuf waaw.
waaw ante fii dina ngeen fi naan maa ngi moom amul suuf ñoom ñaari ndox lañ wax xadis bi ñu ko jëlee loolu la la wax te amul jooñ itam.
amul jël itam juróom ñaar ba ñaar ngi fi juróom ñaar dafa tóol te sharia dafa sopp lu tóol ñaareel bi juróom-ñaar ci boppam sharia daf ko sopp ñetteel bi juróom-ñaar dañ ci jublu lu bari rek itam lii saa juróom-ñaar sopp nañ ko daañu wax asamaan juróom-ñaar di wax suuf juróom-ñaar bu ñu dee sanc néew bu ñu ko dee sànq di wax juróom-ñaar yi sax bu ñu bari dañ ko wax juróom-ñaar ay bis juróom-ñaar juróom-ñaar daal dafa bari yoo xam ne yi dañ ko ci aj ci mbirum sharia ba tey juróom-ñaar daañu ko wax dañuy jublu lim ndox comme li ñu fekkoon arab yi ñu di ko jëfandikante presque langue sémitique yëpp lu juróom-ñaar wala juróom-ñaar fukk dañ koy faral di jëfee pour jublu ci lu bari rek mel ne bu la tubaab français ne je suis venu ici trente six fois je ne peux pas trouver trente six fois tekkiwul ne fanweeri yoon ak juróom-benn dafa ñëw wala wala xam ne la ñëw naa fukki yoon ak juróom-ñaar waaye mënuma la fi fekk kooku itam ba tey tekkiwul ne fukki yoon ak juróom-ñaar la fi ñëw waaye langue bu ne dafa am géniam ak waxinam ak jëfinam juróom-ñaari asamaan yi ñuy wax am na ñoo xam ne ci foofu dañ ko teg juróom-ñaar ak juróom-ñaar fukk istaghfir lahum wala tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'iina marratan falan yaghfir Allahu lahum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay jooju wàccee dafa ne su ma xamoon ne su ma leen jéggalulee suñu borom ñoom naa ko tey juróom-ñaar fukki yoon teg ci benn mu baal leen danaa ko def wala ne kon bu ci tegoon lu mu ci mën a tege juróom-ñaar fukki bu ko yokk bu ko weesoo yi du tax ñu jéggal leen kon waxu rek ne boo leen jéggalulee juróom-ñaar ba mu mën juróom-ñaar fukki du ma leen baal waaye su ko ëppee baal leen juróom-ñaar fukki kon dafa wane ne rek loo leen mën a jéggalu rek lu mu bari bari bari
ndax kon da nga def ay kinaay ji kas rek daal.
rek
sabaa moom ñu ne ma wala ko aada dafa sabaa ñu ne ma saa ne wala ko aada.
Saani dinañ fi ubbi.
waaw asalaamaaleykum.
wax te am na ci loo xam ne kenn du ko wax. asabul masaani juróom-ñaari juróom-ñaar la. juróom-ñaar yi am na ci yu ñu mën a wax am na ci yu ñu yu ñu dul wax. Fatiha ci juróom-ñaar yi bokk moom juróom-ñaari aaya la. sabu aayaatin suuratan tey sabu aayaatin. am na juróom-ñaar ci aaya alxuraan yi yoo xam ne mu bokk ci juróom-ñaar lañu. juróom-ñaar.
suñu boobaa yi
am na am na tal sama sabul masaani yi itam kaw itam mu waaw waaw gis nga xasee ko sabul masaani ak waaba kulli naari bismillahi ci juróom-ñaar yi la bokk xam nga soo ñëwee baa siin miin alif laam laam al saqir juróom-ñaar yi bokk xam nga ci xasida boobu dafa mel ne booboo tax nga ndax mi ngi naan man mu ko waxee ومن قبل بحاجة تقضى بلا شك ومن تلاها ومن ومن ومن بحاجة تقضى بلا شك ومن لم يتلوها ومن لم يتلوها لن يقبلها xam nga kooku Fatiha rek la mën a bismillah rek la mën a doon lépp ndax lépp looy def te waxuloo bismillah hadis bi nee na lu dagg yënkeem la barkeem lu ñàkk barke kooku mën nañ ne lépp yëpp aajo doo koy sax wala loo koy def te waxuloo ko duñ ko nangu maanaam parce que amul barke te boo ko defee kooku
bismillah waaw waaw am na juróom-ñaari baax na baax na baax na baax na baax na waaw ci ba tey ci loolu ko benn affaire boo xam ne xaw na am rapport ak loolu. maanaam xam nga tey bu fekkee ne léegi dañuy wax ci ñaanal nit ku génn àdduna yu mel noonu.
waaw.
kii ixlaas ak benn ñoom ñoo. foofu ndax moom fukk ak yooyu benn lañ gën a taam wala juróom-ñaari ba tey ci foofu la dugg léegi ndax am na ñoo xam ne léeg-léeg dañuy wax juróom-ñaar.
fukk ak benn ak juróom-ñaar bu ci ne am na xasita fukk ak benn yi dafa gën a yaatu fukk ak benn yi dafa gën a yaatu ndax fukk ak benn ak fukk ak ñaar ñu ngi am wóote ci ñoddi ak jëñ ñoddi ak jëñ xam nga kii ñaanal léegi moom yaa ngi ñoddi njëgal ak xéwal yu bari ak magfira wala ñaanal wala fukk ak benn am solo juróom-ñaar am na solo ndax xëy na foofu am waaye ci ñaan ñaanal ni moom nga mu ne kon xilaafu ñoom la ñu wutee wa niyatu rafil xadasi yëkkati wa war na niyatu rafil xadasi yéene yëkkati bu faj alxadas la ñu wax de ndew ci kii daf xar kanam boo dee jàpp xam nga bi nga raxas yii ñett yoon yii ñett yi nga xam ne yooyu sunna la nga raxas di ko sarax bi yëpp sunna la léegi yaa ngi bëgg a raxas kanam foofu nag nga yéenee nga yéen waaye yii sunna nga yéene ndax sunna la
waaye daa ko yéene su daa ko yéene suñu.
waaw xaaral fi ñëw Omar waaye dana dégg si dégg nga kii nag yaa ngi ko leen bilaa niyet wala dara niyet bilaa niyet wala tatri yi foo nga toog la da da ngay jeexal da ngay bëgg a jeexal waaw kañ man dama def mais kiw ñaari passe ñaar waaw ci waaye te ak waaye du mu limu raxas juróom ñaar bi bu lu waxe tel nañ ci xabu xaj aw kilaa bin wala xaj yu bari waxoon naa ko misaal bu dee benn xaj mu xab dem dellu si xabate dem dellu si xabate benn juróom ñaar bi rek bu fekkee ne juróom ñaari xaj a xabandoo rek juróom ñaari rek boobu parce que waaye nag boo raxas nag mu nag léegi mu dellu seen xabaar bi raxas day am
baleen boo si bëgg jëf jëf